dal ak jàmm ci AGT news chaîne ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci AGT news dalleen leen ak jàmm ku nangulul suñu boroom gëm nañu ne di nga sonn loola surtout nag li mu may ki nga xam ni moo di le président Ousmane Sonko gis nañ dem bi nga xam ne def na ko foofee ca Colobane. waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di jaaykat yi ak ña fa daal di dëkkee mu nekk problème boo xam ne soulevé wu na fa am ci ñu bëree bëri ci ñoo xam ne fa la ñuy jaayee ñoom ki ñu joxañ baaraamu tuuma mooy mairie ba ak ñenn ci ñi nga xam ni fa la ñu dëkkee def seen collectif ne foofee ca Colobane waratul nekk ab marché waaye dafa war a nekk foo xam ne ñoom dañuy am cadre de vie boo xam ne dafay jaar yoon loolee moo waral moom président Ousmane Sonko mu daal di fay teg fa tànkam déglu leen waxtaan ak ñoom mobiliser itam équipe yi nga xam ne ñoo bokkee ci gouvernement ma mu nekk mbir mu am solo loo xam ne gëj nañ koo gis ci Sénégal premier ministre boo xam ne dafay wàcc sur le terrain muy lu ama am solo ànd ak ay jëwrinam ngir ñoom ñu xam askan wi jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy dund muy loo xam ni ñi fi jóge ñu ko def te muy lu am solo loo xam ne askan wi soxla nañu ko da dañuy bëgg ku leen déglu teewlu leen xam exactement yan jafe-jafe la daal di nekk te loolee la Ousmane Sonko defa muy mbir mu am solo lépp loo xam ne nag askan wi ñoom ñu ngi koy séntu ci moom président Ousmane Sonko gëm nañu ne dina ci indi solution ci nu mu gën a gaawee ndax kat yenn problème yi faw rek ñoom ñu taxaw ci ñoom ñi nga xam ne ñoo di autorité yi sinon mën naa am ëllëg ay jafe-jafe yoo xam ni du ñu xam fan lañ koy waxee te mën naa jur itam ay jéye yoo xam ne pour ñu régler ko dina nekk lu métti lool lu jafe lool te bu boobaa ñoom itam ñooy doon les premiers responsables. accueil bi nga xam ne nag ña nekkee ca Colobane defal nañ ko président Ousmane Sonko nekkul lu bees nekkul itam loo xam ne bett na askan wi ndax moom moomee ba tey moo nekk ci xolu sénégalais yi dañu daan gis koo xam ne dañu laa fal askan wi quelques mois plus tard du ñu la dégloo te Ousmane Sonko li nga xam ne am na ko ci lu ñeel wàllum politique kenn kenn kenn ku ko mës a am lii nag dafay wane Diomaye Diakhar Faye au premier tour def ko mu nekk le cinquième président de la République du Sénégal moom moo ko waral moom moo ko liggéey te yaakaar nañ itam ci moom ay solution yu mucc ayib moom ak le président ngir askanu Sénégal mën a génn ci jafe-jafe yu ñu nekk rawatina ñi nga xam ne ay ndaw lañu ba ba tey di dundee yaakaar nguur yi fi jaar yëpp tas ko depuis atum 1960 ba tey ñi ngi wër suñu souveraineté te tey jile fi ñu toll la ko waxee ndax yoo xam ni bu doon teg nañu ko tey jile ndaw ñi ñu ci bëri du ñu nekk ay marchand ambulant konoon ñi ngi nekk ci tool yi ba ci entreprise yi am ay liggéey yoo xam ni dina tax ñuy suturlu di suturaal itam seen ay njaboot seen i ay wayjuur loolee moo waral Ousmane Sonko mu ne dinañ leen accompagner waaye am na ci loo xam ne mënatul nekk ndax réew mi faw ñu defar ko mbedd yi ñu yaatal ko dem ak dikk bi gën a mën a yomb ci askan wi ñi nga xam ne itam ay ndaw la ñu bëgg liggéey ñu neetal leen dans de très bonnes conditions ñoom ñoo ñi mën a yëg seen bopp ci réew mi dootuñu jël gaal yi te dootuñu itam am benn problème ak benn jafe-jafe ak képp koo xam ni da nga nekk ci saab koñ bëgg dem beeg dikk bi mën a daal di jaar yoon Ousmane Sonko mi ngi wax itam benn mbir moo xam ne bu am solo la mooy autorité maanaam kilifa bu dee da ngay am ñooy dëgër piir jëlee leen ci benn bërëb faw rek nga leen feneen foo xam ne fa la ñuy daal di nekk daal di leen itam yëgal mbir mu ni mel bu ko defee waxtaan bu amee rek juboo dafay am te réeroo du mës a am ci li nga xam ni moom la ñu bokk te ñun ñëpp ñoo bëgg liggéeyandoo suñu réewum Sénégal moo waral mu ne président Bassirou Diomaye Faye ak moom ci boppam dañ ci def seen kéemtalaay kattan ba bile problème ñu mën koo soulager problème bi la ñu régler ko ba nga xam ne kenn ku ci nekk di nga nekkaat ci sa ay te doo yàqal dara ci sa moroom la nga xam ni moom la war a daal di def AGT News